mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na ca Medina Cheikh ca Ndar bisimilah ci xibaar yi. Adama Ndione. li ci gën a fës daal na ci rek bokk li ñuy duppee retour de parquet ci ñeenti nit ñi nga xam ne ñoom lañu ñu daal di nag teg loxo ci coowal garab yu baaxul yi ñu ne rek dañ koo daal di nag teg loxo seen avocat maître El Hadj Diouf daal di nag jàkkaarloog taskatu xibaar yi. wax ne war nañu jàkkaloo ak juge d'instruction ci euh, talaata ji dinañ ci daal di jukki ci ndoorteelu xibaar yi euh, dinañ wax itam syndicat euh, bi ëmb nag alliance bi ëmb syndicat autonome yëngu ci wàllu santé ànd gësam ak toogaanu ñaxtu ba ñu fas yéene amal itam ni ki ëllëg ba tey seen i ñaxtu ñu ngi koy daal di nag féddali dinañu wax itam jëme ci Eh, ñi nga xam ne ñoo fas yéene rek eh, amal yëngu-yëngu amal nañ ko ba noppi sax doxub ñaxtu ngir sàkk ñu daal leen recruter ñoom élèves maîtres yi amoon nag seen i formation 2020 2021 ñoom jàpp nañ ne recrutement bi njiitu réew mi daal di nag yëkkati ñoo ci war rek jiitu am na nag coow lu rëy ba ca daal di nag tàbbi recrutement googu ñu def ngir rek ndaw yi mën a amam xëy waaye dafa mel ni coow lii moo ci gën rek eh, bari dinañ ci jukki nekkoon na ponk wax sa xalaat bi ngeen mën ci àddu coowal suuf moo daal di tàbbi ca Tiwaawoon fay nemmeeku lu bëree bëri loola waral sax naka la ñuy def ba euh, coow li faral di dox diggante industrie minier yi ak nag euh, communauté bi ñu daal di koy nag euh, wàññi dinañ ci jukki jàpp nañ ne nag réforme yi ñu daal di def rek moo mën a indi li ni mel ci kanam dinañ ci wax dinañ wax itam ci beneen ponk wax sa xalaat bi aju ci wàllu université ak coow ya cay daal di nag tàbbi jotaayu wax sa xalaat bi ci njeextalal xabaar yi lay doon ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku itam ci quartier yu bari ci ndakaaru gox yi ko donc ponk ñooy doon ponk wax sa xalaat bi Papa Abdoulaye Dieye lañ ci àndal ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness Kiss Adama Ndione ci kàddu gi la ñuy wax retour de parquet moom la nag ñeenti nit ñu teg loxo euh, ci mbirum trafic nag garab yi ñu ne baaxul la ñu daal nag amee euh, bu ñu sukkandikoo ci kenn ci seen avocat maître El Hadji Diouf daal nay jàpp ne ñooñu ñu ci joxar bi euh, baaram ci trafiquant yooyule war nañu jàkkaarloog juge d'instruction ci talaata ji waaye jamono ci le avocat bi mu ngay wax ne daal mën nañu jàpp ñoom nag laalewuñu ci maanaam. xamante ñu innocent lañu ñu lu kàddu yu maître El Hadj gannaaw ba mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci micro Amadou Moustapha Dia. waaw tey ci midi lañ leen indi ñu wuy si procureur jóge ci euh, sûreté urbaine commissariat central euh, bi ñu ñëwee nag tey dañ fa ba ci ngoon léegi procureur xool dossier bi ni léegi comme yëf yi xam naa leeru day dem ci instruction benn cabinet juge boo xam ne dana ko mën a seetaat gëstu ko. waaye nag amagul juge day mu ngi seet moo tax mu ne leen nañ delluwaat polis fanaan fa bu subaa bu ñu ñëwee fekk moom mu am benn juge bu ko bu leen mën a entendre mu mën leen inculper pour ñu défendre seen bopp waaye li mën a wax mooy ñoom amuñ lu ñuy ragal lu ñuy tiit ndax jaayuñu benn garab parce que bala ngay jaay garab bu bon defee nga jaay garab ñoom ay ay seringue ay koton donc ay wëteen ak ay gants ak yooyu lañu doon jaay te am nañ ci autorisation donc loolu amul garab buy rey nit kon loolu ay waxi caaxaan la kon ñoom seen xel dal na ñun suñu xel dal na xam ne ndam rek la ñuy am incha allah rabbi beneen coow wàllu suuf ca diwaanu nag Tiwaawan ñu daal di ko fay nemmeeku lu bare bari ci boobule département conflit yooyu faral di dox diggante ñuy liggéey ci wàllu nag ndell gi di industrie minière yi waaye itam euh, askan wa daal di nag dëkkee looloo waral nag ndaje bañ ca daal di nag amal jàpp ne ñoom commission euh, nationale reforme foncière ba ñu daal di nag euh, def rek moo mën a tax ñu daal di saafara jafe-jafe bi faral di dox diggante industrie yooyu ak askan wa Tiwaawan Babacar Sow. ay mbiru suuf moo koy waral ci département bu Tivaouane bi lu toll ci fanweeri hectare daal dañ ko jagleel li jëm ci entreprise minière yi suñu nemmeekoo ni Tivaouane nekk na gox bu nga xamee ni mbay dong lañ ci xam ci wàllum gàncax gi rawatina zone des Niayes ba tax sax jàppante du ñàkk ci gox yooyu nga xam ni yiñ ci gën a nemmeeku moo di Daaru Xulus Taïba Ndiaye Mboro ak Mewane di xam ne lii dina tax ba askan ñu ci bëri daal ñàkk fi ñuy liggéeyee a tar suñu bari yi ci gox yu bari ci diwaanu Tivaouane ndàmpaay yi xaalis bi ci rote méngoowul ak jamono ni muy doxee tey ba njaay jamono ji passé rek ànd taxawu càlle kuréel goo xam ne ay ndaw ñoo ci nekk doon sànni ki yoox def toogaat ñaxtu ni daal seen jaraafu dëkk na daal leen di jox suuf ñu mën a tabax suñu nemmeekoon ñoom ñooñee daal dinañu fay frais de bornage ba noppi Mboro Benno itam askan woof ci Daaru Xuloos daal di jóg ñoom itam di ñaan ñu daal di déclassifier àll booba nga xam ni yaatu na lool a tax ñu am ay kër yoo xam ne yii daañu fa dëkk yu bëri lu ñu fay gën a nemmeeku mooy xeeti waasoo ak jàmmarloo ci wàllu guerre civile rawatina lu jëm ci terrorisme waaye day réewum Sénégal rawatina département bu Tivaouane coowul suuf mën na fee andi musiba mbabba kumba ba tax sax ñuy fàttaliku loi 1964 bi nga xamee ni ci wàllu domaine national nekk na li nga xamee ni xel mënatu la nangu ni yemb na ci jamono jii ba tax sax ñuy ñaan li nga xamee ni moo di liggéey mujjantal yi nga xamee ni kuréel gi ñu dénkoon wàllu coppite ci mbirum suuf rahmatullah alayhi professeur Moustapha Souran nekkoon ca boobu ñu daal di koy dëggal Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokkoo ak yéen pour Sud FM. ñu daal di nag wax ba tey ci wàllu suuf bi yoon itam wàllu rendement bi ñuy amal ci wàllu nag mbéy mi Euh, way xarale yu yees yañ cay daal di nag euh, toftal bu ko defee nag mu mën a am ay jeexital yu mucc ay expérience pilote bi nga xam ne projet boobu ñuy duppee euh, Feed the Future moom la daal di nag teg dundal suuf lañ ko tuddee nee ñu daal tàmbali na am jeexital loolu waral seen nag CRD ci altine ji foofa ca diwaanu Sédhiou acteurs yi seq wàllu nag mbéy moomu di rafetu progrès di nag jéego yañ ca daal di nag def wax ne itam dinañ fexe ba daal di koy nag lawal ci producteurs yu bare bari ci mim yow ñu dem ba Sédhiou fekki Moussa Dramé. jotaay jii lay di comité régional de développement du CRD bi ñu amal mboolem mboolem ñoo xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay mi fii ci diwaanu Sédhiou nekk jamono joo xam ne dañoo weccante xalaat indi càmbar ci lépp loo xam ne si moo di xarala yu bees yi ci mbay mi déplacement profond urée waaye tamit leneen lu ñuy duppee microdose fii ci diwaan bi dañ ci teewlu leeral kii di Sayax Sarr nekk njiitum rendement yi daan am fii ki sëñ bi nga xam ne rendement yi daanaka ay benn tonne laa nekk ak benn tonne cinq ci mel ni mboq bi nga xam ne ñu daan am bu bëree ba bëri une tonne huit lañ daan yi yu bees yi am na lu bare loo xam ne it indi na ko ci wàllu njëriñ ci mbay mi ba tax nañu war ko yaatal doon lu am solo loo xam ne gis nañ ko 18 parcelles yi nga xam ne yëpp testé woon nañ ko dans chaque arrondissement arrondissement bu ne am na parcelle ñu gis ne vraiment résultat yi am na technologie bi permettre na engrais bi ñuy yi gën néew en même temps aussi permettre na rendement yi dépassé na même xam-xam bi nga xam ne moom la recherche indi ak xam-xam bi nga xam ne moom la béykat daan utiliser waaye it am na yenn xeetu jafe-jafe yoo fexe jafe-jafe yi nga xam ne gars yi souligné nañ ko si rencontre bi tey boo ko defee ñu traduire que mu doon ay points positifs au plus tard avant fin du mois nit ñi mën a jot seen semence seen engrais ak appel d'offre yi yeeg ñu war a def ak acquisition yi war a dem ba Saint-Louis ak yooyu ren

ànd gësëm ñoo ñuy woote nag ab toogaanu ñaxtu ci talaata ji lay daal di nag euh, doon ñaar fukki fan ci avril bu 11 jotee lay tàmbali ba ñeenti waxtu ci diggu bëccëg gi ca centre de santé Nabil Choucair euh, dañuy daal di nag euh, ñaalu lañ leen fayul seeni nag prime di ndàmpaay yi aju ci feebaru mbas mbas mi ci agent yi nga xam ne nag neeñu def nañu liggéey ba war ba noppi di xaar nag seeni Euh, ndàmpaay euh, yooyule euh, wax itam jëme ci lu war a toll ci juróom fukk téeméer ak fanweer ak lu tegal ci ay élèves yi nga xam ne ay élèves maître la ñu daal di tàggat ngir ñu daal di nag jàngale ñu def leen ci liste d'attente ci wàllu deux vingt recrutement 2020 2021 ñoom nag doxub ñaxtu la ñu amal tey jile place de la nation lañ ko dooree dem ba rond point RTS la ñuy sàkk mooy ñi daal den recruter ndax jàpp ne projet boobu njiitu réew mi daal di yëkkati dugal ay euh, jàngaleekat ñoo ci ko gën a euh, yeyoo ndax def nañ seen tàggatu nag euh, ba noppi tey ci concours lañ ko daal di nag jaare élève maître yooyu section yi ñu nag leen séddale mooy ñiy jàngalee français ak arab ba tax tey ñu daal di wane nag seeni mer Ismaïla Marcel Coly. Nous voulons être recrutés. Nous voulons être recrutés. Nous voulons Nous voulons être recrutés. Nous voulons être recrutés. ci bàkk bi la ñu amale seen doxu ñaxtu tàmbale ko place de la nation ba ci rond RTS pour xamal nguur gi ne dafa leen nar a jël ci bile recrutement. ñu tollu ci 834 candidats yu jàlloon ci concours recrutement élèves maîtres yi ci atum 2020 2021 ñoom ñu jàpp ne ginnaaw bi ñu admis ci bile concours nar nañu doon priorité nguur gi. xam la lu ñu mel mooy Khadijatou Diallo ki wax ci seen tur. arabe la ak français. ñu ngi ci 834 kon ñooñu noonu bëri wuñ par rapport à ce que li nga xamante moom lañ soxla kon ñun ñu nga xamante ni ñun ñoo toog nii di xaar waroon naa yaakaar que ne ñoo waroon nekk priorité yi parce on a tout laissé suñu examen lépp pour def concours bi kon tey jii nii bu ñu demee ba yegg si fii nii la moindre des choses mooy ñu contacter ñu. yi yu nekkoon ci liste d'attente bi nee nañu. jot nañu bind ay bataaxel yu bëri jagleel ko autorité yi waaye ba léegi amuñu ci benn tontu. bind nañu ay lettres def nañu ay conférence de presse def nañu lépp mais amuñu benn réponse bi nga xamante ne ni favorable na lu ñu bëggoon nag mooy qu'il pense à nous xalaat ñu parce que ñun aussi ci la ñu bokk. te dañoo def concours bi. kii di secretaire général coordination nationale yu jàngalekat engagé yi pour un meilleur système Pape Boubacar Kama jàpp ne ginnaaw bu ñu admis ci ay concours ñoom ñoo naroon doon priorité nguur gi ci recrutement bu ñu nar a amal. ñoom la ñu war a jëkk a recruter yaakaar na euh, juróom ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent du dara ci euh, juróom nangami junni yu enseignants yu war a yu ñu recruter te donc balaa ñoo dellu ci li nga xamante ne moom moo fi nekkoon te yàqoon système éducatif bi nañu jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo def wala boog ñoom ñoo def concours bi ba réussir ko moo gën ñuy yàq système bi di recruter ñeneen. 834 candidats sur la liste d'attente yi ne nañ ñoom daal lenn rek la ñu bëgg xëy jàngale ji fu ñu leen yóbbu ci senegal dinañ fa dem ngir mun a jàngale. Ismaïla Marcel Colly ñu daal di nag wax ci xeetu nag violence yi ñu daal di nag nemmeeku ak. université yi fees dell campus social yi rawatina euh, bu Ndakaaru foofee nag am na déggoo bi daal di dox diggante rectorat étudiants yi ak euh, direction bu kudd ngir yooyu lay jafe-jafe ñu mën ko daal di saafara bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu COUD nee na seetal euh, milliers université bëgg nañ ko jaare ci at plateforme wooy xarale yi nga xam ne nag dañ koy daal di nag teg bu ko defee euh, ñiy def seen nag sàkkuteef di demande ngir rek ñu may leen ñu dëkke ca campus ba ñu mën ko daal nag amal codification yi kon ci chambre yi ñu daal di koy jaay jaare ci plateforme boobule ndax ci dolli itam ñuy joxe ay carte yoo xam ne képp koo xam ne foofee nga dëkkee ci campus ba da koy daal nag euh, yore bu ko defee ña fa ñu mën leen rek euh, génne muy ay coppite yi nga xam ne nag euh, teg nañ ko ba noppi gannaaw élection amicale yi ñuy daal di nag amal te nga xam ne dañ ko ajandi woon ba jëmmi jamono màgget seen mi directeur général bu centre de œuvres université bu Ndakaaru di COUD moo yëkkati kàddu yooyu fële ca diwaanu nag Mbuur ñu déglu ko ak Moustapha Sall étudiants yi ñëw recteur ñëw ak man ñu toog autour d'une table campus bi li fi nekk ñun ñëpp bokk d'accord ne dañ ko war a assainir parce que campus boo demee ba ay nit di ci di xeex ci biir yore ay armes ay jaasi ay paaka di korante ba ay bakkanti corot jot nañu jël suñu responsabilité en tant qu'autorité quoi que loolu moo tax bi ñu dajee di waxtaan waxtaan yu yomb parce que ñun ñëpp d'accord nañ ne campus bi dañ ko war a assainir ci naka mooy képp ku nekkul étudiant wu université Cheikh Anta Diop waroo ci campus bi lépp luy violence dafay war a génn lépp luy arme dafay war a génn xam nga euh, ku dul étudiant am chambre loolu li ko indi mooy quota sociale lii daj quota sociale mënut te ñàkk mais dañoo dem ba mu ëpp ba xaabaabal donc loolu nag la ko sabab mooy quota sociale bu ëpp boobu moo tax ci réforme yi ñu ne au lieu ñuy jëlati codification bi di ko def manuellement lu nekk di ci mën a xew ci wàllu social bi te ñuy wut benn plateforme numérique boo xam ne bii étudiant bi comme ni ñuy defee demande de ci une plateforme étudiant bi day toog chambre am def demande ci plateforme bi ne daa bëgg am chambre ñu définir ay critères yu leer ne ku bëgg am chambre comme ni ko règlement intérieur bi waxee. Euh, xam naa dañ bëgg bu élection yi passé rek parce que li ñuy wax nii yëpp il faut élection yi nga xam ne moo nekk en cours étudiants yi demandé ne ñoom d' accord nañu ànd ak ñun ci assainir campus bi waaye en contrepartie nañ leen bàyyi ñu àggale seen élection wu bureau amical élection yooyu ñoo am yaakaar ne rectorat le conseil conseil restreint dina daje pour permettre. que campagne électorale bi xale yi tàmbale woon te mu war a jeex ci fii ak fin du mois pour ñu mën ko tàmbale ñu bañ ko arrêté ti comme ni ñu ko arrêté woon élection yi passé dañuy def codification yu bees donc chambre yi dañ koy joxewaat à l'occasion nag dañuy ci profito jox chambre yi ayant droit yi wut ay carte de résident du COUD ba nga xam ne ku am chambre wala ku logé keneen ku am chambre yow yaay am carte résident boobu mais na fekk mu nekk étudiant ko defee carte boobu mooy tax nag képp ku nekkul vraiment résident wu campus social bi ñu mën a xam ne yow kat résidé woo fi bu nga laajee sa carte étudiant te nekkoo étudiant di tout ñu mën laa génne. Euh, ci la ñuy daal di nag desandi sax université ak euh, violence yi ñu fay nemmeeku grève yu amuli àpp yi ba ci effectif yu sakkan yi bâtiment yi daal di màgget. lu budget bi doyul ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy daal di yëkkati di ay mbir yu jaxasoo te man gàllankoor doxalinu université publique yi bu fekkee ne nag euh, taxawaayu njiit yi fësul ngir ñu daal di jëfee réforme yi euh, guuta mën na ci daal di tàbb bu ñu sukkandikoo ci kii di ba Yankhoba di nekk jàngalekat ak gëstukat ca euh, université daal di xamle ne ëllëgu université yi daal mën nañ jàpp ne lu lëndama lëndam la tënk geeg Adja Issa Niang yu bëree bëri jàngalekat jumtuwaay yi doyul liy xew jamono yi ci université publique yi nekk ci Sénégal lu ñu mënoon xaar la Yankoba Seydi enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop de Dakar nee na lii dara bettu leen ci. ak bu jot ñu def ay promesse ay liggéey yoo xam ne kenn du gis. Euh, euh, li koy li koy mandargaal ci terrain bi mais bu demee ba yàgg problème yu ndaw yi nga xam ne yooyu lay jur yooyu di dajaloo di dajaloo di dajaloo dafay mujjee nekk yi problème yu mag te université yi déjà seen i problème yi màggoon nañu bu yàgg déjà déjà en 2013 ñu def waxtaan yu ñu noonu yu ñu duppee woon euh, concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur dañu waxoon carte universitaire naka la ñuy diversifier machin tout ça loolu yu bëree wax nañu ay xalaat yu rafet li nga xam ne moo gënoon a nekk jafe-jafe mooy effectif yi li ñu waxoon nekk yeneen université yi dañu leen di dooleel ba nga xam ni seen lépp dina baax dañu dem ba mënatuñu finalement lu ñu génnee mooy université virtuelle institut virtuel boo ko xoolee léegi presque mat na quarante mille ndax trente neuf mille étudiants la fa la am nan la jàngalekat yi ñaar fukk ak benn la yoo xam ne ne ñoom ñooy permanent yi boo xoolee loolu fu ñu jëm mais loolu gisuñu ko université yi dañu nërmal ñëpp nërmal koppar gu nguur gi war a dugal ci université yi xaaju la doy jumtuwaay yu doyul yeneen yi doxul ñi nga xam ne ñoom ñooy bachelier yi ñoom ñëpp ñu yóbbu leen eh, ci université publique yi eh, faw ñu ut système universitaire bu dul loolu université yëpp nar a taxaw réglé ko war te mën a jafe ndax problème bi solution yi yëpp xalaat nañ ko def nañu waxtaan bu nekk def nañ résolution bu nekk def nañu li xew bettul kenn umpul kenn dara doxul ci biir université publique yi nguur gi faaw mu daal di jël ay matuwaay bu dul loolu jëye dana fa xewaat. Euh, jëye daal di fay xewaat noonu nag euh, bokkoon na ci ponk wax sa xalaat yi ñuy jukki woon ci euh, juróomi waxtu dañ koy daal di wéyal ñu daal di nag wax liggéeykat yu Sen'Eau ñoom nag nañu li ñuy sàkku mooy seeni nag fonds de placement yi nga xam ne xayma nañ ko ci lu war a toll ci ñaari téeméer ci million ci suñu rek koppar ñoom nag war nañ toll ci ñeenti téeméer ci agent yu interpellé nag nguur gi ne ñu daal opinion nationale bi ak internationale bi ñu ngi leen di nag. artu ci euh, jeexital yi mën a ko ci situation ba ñuy dund kii di Mouhamadou Rassoul mbay mooy délégué bu personnel bi ñu déglu ko ak euh, Birama Ndiaye. def suñu ay dividendes yi nga xamante ne moom leen doon reversé SDE moom lañ doon reversé nu ko doon def ci fonds boobu pour gën ko ñoŋal gën ko dundal ba mu toll ci trois milliards cinq cent millions. ñoom nag ban fi toogee fukki weer ak juróom yooyu ba léegi ñuy dagg suñu cotisation yi te duñ ko reversé. ba affaire bi war na toll tey jii environ deux cent millions war na ko toll war na ko jege bu ko solulee tamit war na ko jege ñu jàpp nag ne jaaduwul du yoon ma nga xamante ne loolu personnel bi naqarul nañ ko ñu mandaté woon ma benn partie personnel bi bien que am na ñoo xam ne d'accordoon ci ci li may wax nii ne benn partie boobu maanaam boo leen xaymay war nañ toll tey ci quatre cent quarante quatre personnes ñu ne ma ñoom kat dañu bëggoon ñu delloo leen seen cotisation comme seen mu ngi koy dagg te wu ko daal xamuñu fan lay def xaalis bi même delloo suñu cotisation ba nga xamante ne loolu xew na nag man délégué du personnel ba ma lenn ci travailleur yooyu joxe kàddu dénk ma mbir mi ngir ma portel leen ko ma bind directrice général bi dem fa ñaan ko rendez-vous mu may ma rendez-vous jeudi le 15 avril bi passé ba ma demee ma xamal ko ne ko 444 personnes day ñoo ma tabb ne ma pour ma lijjanti leen seen xaalis pour ñu delloo leen ko xaalis boo nga xam ne yaa ngi koy dagg te refet soxla ci FCP SDE bi nga xamante ne loolu xew na nag réunion bi déggoowuñ ci kàddu directrice général bi mer na bu dee réunion bi ma ne ko nag dinaa la mettre devant des responsabilités waaye du tee ñu nit yeneen pexe yu nga xamante ne ñun dinañ ko def ba ngeen delloon suñu xaalis parce que du dëgg du yoon ma ñëw nag tey fii fii ci Sud FM doon xamal askanu Sénégal mais nañu xam lu xew biir seen wu noot gi nga xamante ne personnel bi ñu ngi noot seen alal waaw loolu leen bëgg mu dakk loolu leen bëgg mu dakk ñiitu réew mi nag ñu ngi koy interpellé ñu ngi koy interpellé ndax luy raam ci nag bi la jëm du o rek de SDE ci boppam ba nga xamante ne nguur gi ndax na leen ba ni fi Sen'Eau moom it suñu fonds commun de placement boobu nga xamante ne moom laay junj léegi bu toll ci trois milliards et quelque ñoom it ko téye ne ñoom ñoo ko créé woon donc ñun Sen'Eau du ko traité benn tubaab la fële te SDE ndax mooy directeur général bi léegi tudd Jean Claude Simana fii nii ku ñu teg suñu naqar ak coono yu nekkee di jëni armel ma xool nag loolu nag ne moom vraiment mu nuy bëgg a jaaxal waaw réew mii réew yoon la duñu bàyyi ay nit yoo xamante ne ay doxandeem leen fi ñëw fii di fi tëral seen ay loi di fi def naka sudul noonu ñu leen di bàyyi kooku moom duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg lu nag mun na ci xew lu ne mun na ci xew fekk suñu réew ba pare di noot si suñu alal ah tàggat yaram kon Pape Lay dañuy daal di nag wax ci wàllu tennis bi nga xam ne kii di Ibrahima Diaw Euh, nekk sénégalais bi njëkk nag qualifié ci Jeux olympiques Tokyo 2020 nee na daal xelam mu ngi ci médaille olympique bi jamono jile moom daal dinay wax ne sax noppi na ngir jongante yooyu mu daal di koy amal tey jii jàkkaarloo na cek taskatu xibaar yi dinañu daal di teewlu ay kàddoom euh, ci yeneen i jotaayu euh, xibaar ñu daal di nag wax bile résultat bàyyeekoo nag ci ba tey championnat Angleterre 32e journée bi di fanweer ak ñaareel bi diggante Liverpool ak Leeds bi nga xam ne match bi daal mujjee na euh, ku ci ne daal di ngay am benn bal ci sa euh, morom kon match ni la euh, yëf yi daal di nag mujje gannaaw bi bi nga xam ne international Sénégal di Sadio Mané daal na koy rek dugal ci fanweer ak benneelu minute bi li amoon ci wàllu tàggate yaram pàcc bu mujj bi ñu ubbi antenne bi ci wàllu wax sa xalaat